moo tax boo dogee bokk na ci li ngay ñaan nga ñaan lii baax na ginnaaw bi nga waxee làkk sumt bi ba pare nga wax allahuma shfi mardaana warham mawtaana wa aafi mubtalaana wa fukka asrana wajbur kasraana lii George soo ko ñaanee ñaanal nga ñooñu ma waxoon ci occasion bi nga am ci weeru koor bi George jërëjëf Oustaz Mor Thiam ñu joxante dig daje ëllëg ci beneen yóbbal. RFM matin émission bi yee Sénégal. soo leen suba teel yaay déglu leen RFM matin bu ñëpp yeewoo suba teel yaay. na ngeen dégloo RFM matin. RFM euh, matin euh, ñu agsi ci euh, sunu gan dalal ko Mamadou Yatta Sy salaamaaleykum. waaleykum salaam wa ma fas yéene ànd ak Barthélémy Ngom ci waxtaan wi yow yaay njiital mouvement S'unir pour demee nekkoon candidat ci élection présidentielle bu. waroon am deux mille vingt bu war a am deux mille vingt gi mais ñaar fukki fan ak juróom la waroon am léegi ñaar fukki fan ak ñeent la coow bëri ci langue politique bi déjà ñi bëgg ñu reprendre processus bi dem sax ba naan dañoo war a tas conseil constitutionnel yow bi ñu recalé sa candidature ba léegi de daanaka lañ lay dégg bëriwul ci ban boor nga féete. bon euh, Georges may moom ma nuyu Sénégal ak di ñu seetaan di nuyu Barthélémy. di la nuyu di leen remercier ci invitation bi bon man les avis sont partagés. mais man sañ naa wax suma xalaat. Mm-hmm. man gis naa ni euh, au Sénégal est au-dessus de nos personnes. Mm-hmm. donc patriotisme boobu ñun ñëpp wax nañ ko am. donc bi ñu recalé sama candidature parce que damay dégg ci article 92 bu constitution ñuy wax ne euh, les décisions du conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours donc en tant que républicain et légaliste. Voilà, je me suis je suis retourné à mon travail parce que c'est tout ce que je sais faire. Maintenant am naa ci avis comme conseil wax na man dama jàpp ne ñun ñëpp dañ ci wax a tënku. En tant que bon Sénégalais dañu ci wax a tënku. Et aujourd'hui je je parle en connaissance de cause en tant que administrateur de société homme d'affaires dama gis ne ñu dem vers des élections le plus rapidement. Euh, président coow li bari na. Euh, président coow li bari na. Euh, coow li bari na PDS fu mu ngànk ak ay alliés front euh, démocratique pour une élection inclusive fi ñu jàpp bàyyiwuñu ko ba suba sax la cour suprême war a penché aussi seen euh, recours boobule est-ce que yow personnellement gis nga ne y a une violation de la loi électorale ci li xew nii ñu koy justifier une situation exceptionnelle moo xam nga tey man su ma buggee wax ci li pa li PDS di def dafay xaw a compliqué pour man parce que comme j'ai dit tantôt PDS c'est le PDS ak respect bi ma am pour ñoom yëpp je pense que aujourd'hui comme j'ai dit le Sénégal doit être au-dessus de nos personnes mm-hmm. li ñu soxla aujourd'hui c'est quoi des élections très rapidement et qu'on passe à autre chose oui mais laaj bi laaj bi mooy mm-hmm. euh, pa li PDS def processus bi ci wàllu boppam ba li indi lii est-ce que gis nga ne am na fi mu sooxee am na fu mu sooxee ça c'est une évidence parce que j'ai été victime de ça mais comme j'ai dit tantôt je suis régaliste. tout à fait bon kenn ma bokk ci benn kuréel pour casse wala pour dénigrer wala pour parce que quand même je pense que il faut à un moment donné qu'on soit responsable qu'on soit responsable et qu'on arrête vraiment de faire de la politique politicienne man sama avis personnel c'est ça. sooxe bi fan la. bon c'est au niveau du conseil constitutionnel. il y a beaucoup de choses il y a beaucoup été yu bëri ni ñu ko defaree du noonu bon en tant que acteur bu bokkoon ci ci ci candidat yi mën naa ko seede il y a eu mais maintenant am na ba pare et ñu ñëpp constitution ñu tënku. il faut il faut juste euh, voilà ñu jàng de ces erreurs daal respecter dogal gi respecter dogal gi et puis gis nga ne am na problème mais y a des y a eu des problèmes ça c'est une évidence et du ma toog fii di ko di ko nier mais aussi on est tous des citoyens wax nañ mën a suñu citoyenneté wax nañ mën a jaral bon voilà la présidentielle c'est pas une fin a soi war nañ mën a jaral ñu ñu ñu yenn yi mu jàll et puis ñu jàng ci aussi. justement looloo tax ñu bëgg xam faute yooyu nga xamante ne jàpp nga ne am na yana donte sax bay wéy na mbuus ëllëg ñu mën koo gàgganti. xam nga déjà tirage tirage bu toog ni élection présidentielle ñu dugal ci tirage chouetterie déjà c'est sa sonne mal à l'oreille alors rek bokkul ci warma bu ñu war a warmaale réew mu toog ni Sénégal ci démocratie donc moo tax ma ne am na ba pare. voilà nañ ci jàngaat fexe yi joutes yi di ñëwaat aussi voilà yu mel ni bañ ci amaat. d'accord mm. euh, li am am na ba pare yow nangu nga ko parce que da nga ne respecter yoon donte sax problème am na. je suis un républicain c'est tout à fait normal. d'accord gannaaw ba loolu amee léegi euh, fan nga féete ci opposition bi ci côté pouvoir bi fan nga fan nga taxaw. man je reste neutre. yaa ngi varié de doo dem non je reste neutre. d'un bord ou d'un autre. pour beaucoup de raisons. parce que opposition bi ma gis ak euh, sema ambition hmm. je dirais pas àndul mais man je je suis venu avec un projet pour mon pays je suis avec un projet pour la jeunesse sénégalaise te dama gis ñaar yi dafa manqué Sénégal mooy bonne gouvernance ak emploi jeune amu fi donc euh, à partir de ce moment là gisaguma vraiment candidat bu taxaw. wax ci bonne gouvernance wax ci emploi jeune. te comme man candidat yi nekk ah, ci terrain bi ñoom non man man man. personnellement wala programme man man man sama programme man. bi ma indi woon pour dem aux élections présidentielles c'était construire un Sénégal boo xam ne chaque jeune. day entreprendre. parce que bu ñu nax bu ñu nax aussi suñu bopp euh, jeunesse bi ñu am tey bokkul ak jeunesse bi fi teeru woon Cheikhou Sarifou bokkul ak jeunesse bi fi teeru woon Vayde yi donc suñu ñëwee ba egg foo xam ne ni Sénégal toll na tey ci démocratie ak ci ci ressources naturelles ak ci ressources humaines foo xam ne beaucoup de pays tolluwuñ fa et pourtant ces pays là ils donc li ñu war a def mooy defaraat jikko yi surtout que ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci kanam ñu jàng di wax dëgg parce que fa dafay wax dëgg te dañ ko manqué donc ah. man samay valeur ak sama éducation permettre ma ma nekk ci xëccoo bi ak xiiroo bi ak ŋaayoo bi. d'accord léegi sa programme boobu da nga ko rangé waat jekk den denc ko wala. non duma ko rangé xalaatuma ko. bi ma koy def. Mhm. bi ma koy def d'ailleurs dans les. dans les prochains jours je vais en partenariat avec la pexu vais je vais essayer d'octroyer des entreprises personnelles au jeunes mhm. les groupements d'intérêt économique ma fexe ñu am ay ay kayit parce que mhm. parce que foofu la ñu war a tàmbalee mhm. fexe xale yi am qualification xale yi dem former wu ji et puis parce que emploi kenn du ko décréter donc il faut xale yi dem formé wu ji dem uti qualification prétendre à un métier et à partir de ça. dinañu formation professionnelle di voilà dinañu mën a dara seen bopp. et que soo xoolee tey kër yu bëri soo fa duggee dangay gis ku yor sëtam. ku yor sëtam. et c'est très grave c'est très grave donc te yooyu yëpp lan moo ko indi ñàkk a waxante dëgg bi. ay foog naa nii yaakaar naa lee. te dëkk du doxe noonu. kër du doxee noonu. te kilifa yi ñu am aussi ñu leen di ñaan ñuy wax nit ñi dëgg. bu mu metti metti ñuy waxante dëgg. d'accord mais mais président li ma bëggoon euh, li ma bëggoon laaj mooy am nga programme boo xamante ni yaakaar nga ci yaakaar nga ne buñ ci sukkandikoo amaana danañ régler problème yu bëri yi wàllu emploi loolu lu baax na mais nga nar a dem en solo ba a féete kenn parce que projet neex na ci kaw nga travailler ko ak ay nit yaakaar nga ne yow am nga doole bi puissance bi war pour sa projet boobu nga def ko. te doo soxla ndimbalu kenn. bon tey tey pour dire vrai il faut il faut aussi être honnête su ma gisoon candidat gisaguma ko et je pas aussi d'aller rejoindre quelqu'un. kon ñaari camp yëpp gisoo ci kenn. kon kay doo wéy ci neutre bi nga wax. non non reste reste <laughs> ah, <laughs> dama ne pour le moment. Mm. Euh, jamono jii may wax ak yéen j'ai décidé d'être neutre mais dama ne su ma gisee candidat. boo am ay valeur bu am programme pour un Sénégal sama programme wax koo mën a dimbali. dimbali ndaw yi dama koy def. est-ce que yow doo dem ci Amadou Ba sax. Hmm, non. ah si parce qu'il y a une chose qui euh, exemple. Ah, amoo ay nit ñi nga xamante ne euh, ñu ngi ànd ak waa nguur gi. man non maa ngi ñoom maa ñoom. non pas yow personnellement mais say mbokk. bon xam nga. sa frère préam àndul ak ah, ah, Abdou Karim Sall. Euh, non loolu waral sa sa neutralité bi ngay wax nii rek sama frère am na frère bu ànd ak Boun Abdallah Dionne j'en profite pour pour pour encourager ko ñaanal ko mu bëgg yàlla defal ko ko. en tout cas lépp loo xam ne ne wax naa ko fii lu nit mën a retenir man je suis constant dans mes propos dama ne man Sénégal est au-dessus de personne. su ma gisee sama naawle et quand je dis naawle mooy koo xam ne day wax dëgg ni man. teg affaire yi ci yoon. parce que aussi il faut il faut rappeler il faut rappeler une chose et c'est très important man li ma am yëpp fii laa ko liggéey Sénégal musuma nekk ci ay dem tukki uti dara ñëwaat na da nga gëm ne war nga mën a toog sa réew fii laa ko amee. Mhm. donc gëm naa ni je suis un parfait exemple. Mhm. pour cette jeunesse sénégalaise. mais dama ne dama ne candidat bu ma gis. Mhm. xam nga aussi man fii laa dëkk. homme d'affaires la entrepreneur là opérateur économique là je sais fi qui fait quoi et comment que ce soit opposition que ce soit le pouvoir man lenn moo may intéressé. le candidat le mieux pour le Sénégal. Et ça, je sais discerner le vrai et le faux. Et en toute responsabilité ba su ma ko gisee man dinaa jël sama projet suma moyen ànd ak moom pour un Sénégal prospère man loolu laa gëm. mais daal ba fii gisoo ko ci opposition gisoo ko ci pouvoir ba fii si li ma jot a gis si premier jour de campagne yi je reste encore vraiment. ah da ngay xaar Bassirou génn. Hmm, Bassirou bon maa ngi koy ñaanal ñu bàyyi ko mu génn ak Ousmane d'ailleurs Euh, comme comme j'ai dit non. non oui mën na nekk Bassirou mën na nekk keneen ak keneen mais tout compte fait comme j'ai dit tantôt dans mes propos man je suis un homme très responsable. fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee lu ma am fii laa ko amee donc nax ma du yomb je suis de la Médina j'ai grandi à Pikine à Yeumbeul Gueule Tapée kon xam naa la war a xew. ci réew mi xam naa ni réew mi di doxee dama ne jusqu'à aujourd'hui où je vous parle fii ma toog gisaguma si programme candidat yi ñu wax yu jëm ci bonne gouvernance ñu wax yu jëm ci candidat yi parce que seen programme ku ko càmbar gis nga xëy na ku nekk na nga am na des aspects liés à la bonne gouvernance bon je reste un homme très occupé Euh, mënuma candidat bu nekk. ils ah, sont dix neuf laisse-moi finir ils ont. dix ils sont dix neuf à briguer euh, les suffrages des du dëgg. mais chaque soir je prends la peine ma toog seetaan seen. journal de campagne. mais dama ne à ce jour dégguma candidat bu wax ci bonne gouvernance ak emploi jeune te Sénégal. on a deux problèmes ñaari problème yi tant que développement duñ ko dégg mooy la corruption et la jeunesse ñaari moom à la àll le nouveau président il aura un, grand chantier un grand chantier parce que ñaari affaire yooyu moo tënk Sénégal ba tey te il faudra fii metti nag ñu dul fa baaraam bi. ba fii amul benn candidat ci ñoom muy ci opposition bi walla ci nguur gi ku ñëw waxtaan ak yow ci. bon waxtaan bi moom mënu wax c'est c'est évident mu ni jànq bu bu ñëpp di di wut avoir un candidat. lu ñuy wut ci yow yow. bon pour d'abord d'abord amoo amoo parrainage yu mot. non du du parrainage du parrainage bu manqué moom ma ah, bloqué. man man man man man man j'ai déposé cinquante huit mille cent trente sept parrains ak cent vingt quatre fiches physiques ñu dugal sama clé. jox ma procès verbal comme quoi j'ai déposé cinquante huit mille cent trente sept parrain un agent assermenté. muy le greffier en chef moo ko signé. donc je pense que su kër bi tijjeeku woon du ñu mën a wax ne j'ai temps de parrainage xew du yenn waaye aussi nañu waxante dëgg. maintenant arrivé arrivé à un certain moment arrivé à un certain moment parce que aussi xeex ak man du yomb. arrivé à un certain moment ils ont dit sama kër a tijjeeku man moom le motif de mon dañ ne sama kër a nangoo tijjeeku et pourtant sama procès verbal ils m'ont clairement signifié. Mm -hmm. que j'ai eu cent trente sept parrains. mais clé bi moo nanguwul tijjeeku mais dañ ne dañ ne clé bi nanguwul tijjeeku looloo ci man. d'accord mais li ma doon wax léegi. candidats yi ñëw di waxtaan ak yow kan ak kan la. non je je ne dirai mais en tout cas beaucoup sont venus me voir. et vraiment je reste encore sur ma en la daal honnêtement en tout xam nga aussi euh, bukki du boot du boot gaynde mm-hmm. ah, dégg-dégg naka laaj ah, ci ginnaaw ñi ma seet seegum voilà pour sama sama sama sama sama profil pour sama jaar-jaar ak aujourd'hui fi ma tollu ci ci ci Sénégal ak ci ci Afrique mm-hmm. am na loo xam ne su ma koy décider voilà damay seet koo xam ne vraiment parce que du ànd ak nit pour ànd ak nit. man j'ai mes intérêts au Sénégal képp ku ma mënti àndal daf may wóor ne ne mën ngaa yor Sénégal. justement ci wàllu woowu. Hmm. juñ na ko bi ñuy door waxtaan wi. Hmm. Euh, administrateur de société nga. Hmm. Euh, situation bi ñuy dund nii lan gàllankoor lay indil koomu réew mi ak surtout ñu nekk ci période koor gi nga xamante ne dund Sénégal yi dafa cher. je vous je vous parle en connaissance de cause hein l'économie du Sénégal est presque à terre euh, ñun ñi am. yéen ko yëg kon. ah non c'est une évidence ñun ñi am link un peu partout dans le monde xam nañ ni benn investisseur nangootu ñëw Sénégal en ce moment pour investir. d'où l'importance d'aller aux élections très rapidement. te loolu climat politique bi moo ko climat politique bi moo ko indi. consommateurs yi ñu ngi def seen journée le quinze mhm. je pense qu'ils vont ils vont dire la même chose que j'ai dit. aujourd'hui mooy que ne le des denrées yokku na bu baax considérablement et que aujourd'hui sur quatre Sénégalais les deux vivent au seuil de mille francs CFA par jour donc dëkk bu mel noonu soxlawul mbiri góob bi ñu nekk nii. donc euh, ce qui doit être fait mooy en toute responsabilité ñu xam ne ñu ñëpp ay borom kër lañ ñuy waxal yàlla di defal yàlla tey wax dëgg ñun programme boobu rek lañu am Sénégal ñàkk waxante dëgg muy kilifa baak muy surga baak ñàkk a waxante dëgg rek mooy suñu problème donc aujourd'hui toog fii naan tout est tout est bon tout est non rien n'est bon au Sénégal aujourd'hui investisseurs yi nanguwuñ fi ñëw ñun ñi nga xam ne ñoo fi jot a nekk di corporal pour respecter les salaires des employés à la fin du mois des fois tu vas. gymnastique des fois tu tu es à découvert tu es à découvert et pourtant ñu ngi koy gérer donc maintenant man mënuma am responsabilité yooyu toog fekk koo xam ne ni bon à part jànqam. wala chauffeur am gisuma ko muy fay. ma topp kooku di daw. mais mais mais yow bi nga xamee ne yéen a ngi dund situation bu métti. Mhm. yéen les hommes la hommes d'affaires. Mhm. situation bu métti boobu ngeen di dund même pour fay seen personnel teewul mhm. ngeen di soobu ci politique politique ku fa dugg kay xam na ne xaalis ngay xaalis ngay et la et la personne de moom. waa léegi boo jàlloon xaalis ba ngay campagne foo koy jëlee. bon moo comme comme j'ai dit baax na mi bàyyi ñu bàyyi mu sedd. jërëjëf Mamadou Yatassaye mm-hmm. euh, njiital mouvement s'unir pour euh, demain jërëjëf Barthélémy Ngom mi ma àndaloon ci waxtaan wi nu ak ziar soxna Naata Mbaye ak ñamoo dal ci euh, télévision Futur Média ñu yendoog jàmm. merci beaucoup Georges Déthié Diop euh, Barthélémy Ngom ak seen gan du Mamadou Yatassay di leen ñaanal kendal ak jàmm ak euh, ay programme yu rajo Futur Média ci kanam tuuti incha allah de quoi est-il le nom et puis benn document bu ñu leen jagleel tey xam ngeen ni 14 mars 2024 def na ñetti at ginnaaw ba Thione Seck dëddoo àdduna am na waxtaan bu ñu seq ak Malick Ndoye nekk xaritam bu yàgg sax du ñuy faral di ko dégg tey mu yëkkati ay kàddu ci suñu micro et puis buñ ci noppee docteur nekk économiste dinañ ko dalal ci ñaareelu pàcc bi léegi ñu jàll ci xibaar yi yaatal ko ak Cheikh Tidiane Diaw. sëñ Cheikh ginnaaw ba ma la nuyuwaatee xibaar yi ñu tàmm